dale na jàmm politique daal ron-ron la ku nekk ca roon nga bëgg a xam la ca kaw faaw nga teen ba tax fi mu toll ñëpp a teenandoo muy candidat yi yëglu ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar ba ci seen njiit di njiitu réew mi di président Macky Sall mi war a tànn si du quotidien tey jii ci samedi ji la war a tànn moom njiitu réew mi di président Macky Sall kan mooy nekk candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar ci élection présidentielle yu atum 2024 nekkit lu risqué ba àgg ci lool tax journal bi jàppee ko samedi de vérité las quotidien yombul benn yoon ci njiitu réew mi gannaaw diir bu yàgg ak waxtaanu bari woo xam ne na ko ci tey jii faaw mu fesal ki mu jàpp ne moo gën ci biir coalition Benno ngir mu nekk seen mbër ci élection présidentielle yu atum 2024 tribune yéen kaay ne bu doon examen la ñu ne tey jii le président Macky Sall di délibéré enquête yéen kaay duppee ko waxtu dëgg ci gaañi gi seen nopp yëpp ña nga ko jëmale palais de la république vox populi ne waa APR nee na na képp ku njiitu réew mi di président Macky Sall tànn na ca ñëpp ànd ñu booloo defub dànk gunge ko ba keroog ñuy dégg wiiw ca 2024 les échos ne APR kay artu na na sous coalition yi ko jege itam ñoom nee nañu képp ku président Macky Sall tànn moom la ñuy topp le quotidien mi njort Amadou Ba ne gannaaw tànneef googee itam fàwwu ñu mu tànnul am ñu ci génn nguur gi Walf Quotidien ne loolee nag bokk na ci li tardeeloon tànneef gi ba fii jural itam xel ci njiitu réew mi di président Macky mi nekk ci donkaasi gi l'observateur ne ndax dooley président Macky Sall ci ay ñoñam dafa wàññeeku ndax juróomi weer yi ko fi dese journal Futur Média bi ne la tax ñu wax ko moo di ne njiitu réew mi ay ñoñam kum ci mas ni xoox loo dëgër dëgër ak loo doon doon jàmbaar di nga gestu ba xam fa mu toll ak la mu lay wax waaye journal Rue 15 angul ko bi nee na bile yoon li nu seetlu moo di ne wax jekk daayilante bi dafa yeex ba àgg ci loolu loolee di tekki ne am nañu ko tàmbalee ñemee ay analyse politique itam ci biir l'observateur ne njuumte dëgg lay doon muy beddi ñi narta ànd ak ki mu nar a tànn ñu jàpp ne li gën moo di wéyal waxtaan ba yay leen waayeet wane ni ñépp ma gënal sama bopp ndax loolee tax du mën a wéet ci bii xare xare boobee direct a nekkul politicien waaye nag loxom mësul jukk ci luy dooleel njiitu réew mi fi nekk di président Macky Sall te loolee mooy loyauté Ndeye Fatou Guissé ci évidence ne loyauté ak exemple bu wóor Youssou Ndour firnde la ci keneen ku loyal ci moom moo di Souleymane Ndiaye journal bi ne partem bi di synergie pour un développement durable dugg na officiellement ci international démocratique centriste gannaaw assemblée générale bi doon amee ca Praia ga Vert Dakar gi ci Sénégal ak a ñaxtu bi nu fi bëggoon a amal niki démb waa F24 déclenché nañ seen plan B yéenekaay bi ne sabar yu ànd ki tàccoo ki sarxoole bëggunoo bàyyi dara moom la ko gaañi di remplacer Vox Populi ne F24 daal nee na na réew mi riir nañu ànd tàngal njiitu réew meek waa gouvernement bi ku mën a fëgg-fëggal ku mën a sarxoole sarxooleel ku mën a yuuxu itam yuuxul bu waa ji dégg dimanche ju xumbute dagan lañu bëgg muy dëkk bépp maasé di riir Maroc gépp maasé woon di riir démb ci guddi lii quotidien tremblement de di su yëngu moo fa écarnacé ca boori Marrakech loco Afrique am na lu ca bees libération yéene kaay ne juge bu sixième cabinet def na ci contrôle judiciaire Emencio Moreno ak Michel Borelli journal bi dolli ci dinu xibaar ne mbirum lee xoor ci wàllu or mënu jàppe woon Tayib Socé tribunal jox na ko dëgg bay sàkku ci Moussa Touré ak Cheikh Tidiane Diakhaté ñu jox ko lu tolloo ko juróom-benn fukk ak juróom-benn million ci xaalisu CFA wàllu yoon itam la ñuy daaneele ci page cinq bu l'observateur ci xalimaak Doudou moo di ne